Ouleymane la dernière fois. Hmm. moom it mu wax ñu du ñàkk xam na ko ndax yaa ngi tudd président Macky Sall yaa ngi tudd Mariam Faye Sall mu bokk ci euh, en tout cas ci ay entourage suñ ko mënee waxee moom di Cheikh Mbacke Gadiaga. Ah. naan di koo xam. Ah. Euh, euh, Cheikh Mbacke maa maa ngi laa nuyu bu baax xëy na thématique ci bi ñuy wax. waaw waaw. way maa ngi gis yaa ngi insisté pour dugg ci li ñuy wax nii da ngaa am loon ci bëgg leeral ci soxna Seck. nuyu sama wëllëre boobu nga xam ni ñëpp lu nañ xam-xamam macha allah di Pa Moussa. maa ngi ko ziar. di nuyu seen auditeurs yi di nuyu ñi nga xam ni ñoo ñuy travers le monde ak sans limite. waay. waaw xam nga rafetlu naa xalaatam. Hmm. waaye président de la république. mooy garde de la constitution chef suprême des armées. Hmm. Euh, gis nga Dubaï kenn xamul kan mooy kii wala kii mooy kële. bu munul dox benn mètre te nit ñi ñëwuñu photo ak moom te président de la république pale bi ñett ko bokk catholique bi jullit bi ak ki nga xam ni gëmul dara hmm. constitution bi moo wax ni képp koo xam ni citoyen Sénégal nga président de la république mooy sa sécurité ak sa wàllu santé te yaakaar naa mën nañoo nangul président de la république ñu ne day photo ay nit ñoo xam ne dañuy saaga waaye mën nañoo nangul Ousmane sonk mi nga xam ni taxaw na ñëpp di ko gis Assane Diouf ni day wutal ay sàngara xalif général des mourides bañ jàpp woon ko fi mu saaga Serigne Bass Abdou Khader kon yaakaar naa am na loo xam ne boo ko génnee dina gën a yeewaat leneen mais président de la république nekku fi pour recevoir ma Samba wala ma Demba ndax fa mu dem fekk jiwul Awaskuti Awaskuti sénégalais la Awaskuti am na droit dem ci président de la république ndax mooy chef d'état ba ci euh, euh, euh, code procédure pénale may na Awaskuti mu wax képp koo xam dañ ko nommé pour décret mu joxoñ ko ni ko lii sama alal la lan nga ci def. Moussa Gokay Ndeye bilan bi. Moussa Gokay Ndeye beneen bi ci. Cheikh Ousmane bi ci topp. Hmm. Cheikh Mbacke am na ci seex Mbacke Awas Kuti ban la ban code pénal moo ko may Moussa Ga. su fekkee da nga bokk ci opposition. laajal ma ko loolu nangul nañ la euh, ki nga xam ni mooy Tunkara nangul nañ la ki nga xam ni mooy Molan gis nañ fi Cheikh Bara Ndiaye dugg na ay laay fam ba tàyyi ak Pape Alé te hmm. ñooñu lu ñu waxul suñu kilifa diine yi amul gis nañ fi Akhenaton saagakat yëpp daal ñu ngi kër Ousmane Sonko mais kenn koo xamante ni dem na photo woo président de la mais loolu du crime Souleymane Jules Diop lu mu fi waxul président de la République amul. ndax bu doon yow la dinga nga nangu mu dajeeg moom ndax bu doon yow la di nga nangu mu dajeeg moom soo nekkoon ci protocole bi. mani yenent bi salaay salaam bi mu jixaatee ba nit ñi dugg ci lislaam continué wul di jixaat ndax ñi nga xamante ni ñun mooy suñu combat muy ñiy critiquer bilan président Macky Sall ñu ñëw ànd ak ñun ndax ñay mbooloo moo koy rëbb. loolu amul lenn lu ci nit mën a wax Marème fay amul décret bu ko nommé su ko neexee dem tàndibeer su ko neexee dem fu ko neex ci àdduna parce que moo moom boppam soxna soxnas Macky Sall la di soxnas njiitu réew kon lépp loo xamante ni def na ko loolu coobareem la ndax ñu Marème fay Sall président Macky Sall lañ fal président Macky Sall nag mooy ndey di seex président hmm. Macky Sall mooy président ñëpp kon dérangé wu la daal yow ci déggin mooy dérangé wu la ku mais avant muy la république kenn saagawu ko Mm. bi mu nekkee président de la République dañ koy critiquer ndax moo yor alalu ñëpp ku yor alalu ñëpp nag ku yor njaayam jàmbur sañoo koo jóor fu la neex président de la République fépp fu mu dem ku nekk am nga droit dem selfie ak moom photo ak moom loolu dara nekku ci mais bu dee opposition mën nañ ànd ak saaga ñu d'accord ak ñoom su fekkente ni nekk nga mais njiitu réew mi dafa bokkut ak opposition bi ngay wax euh, c'est-à-dire ñu mën a peut-être. tuuti tolérer opposition mun ñu ko tolérer euh, ku mel ni président Macky Sall ndax moom mooy njiitu réew ñëpp. mais mais est xam na ko laaj bi mooy est xam na ko moom. mani Awas Kuti président de la république bi muy photo woog moom. Hmm. dafa ànd ak soxnaam di doxantu ci óolu bi. photo boobu ñu photo wu am na lu mat mille personnes yoo xam ne dañoo rang taxaw pour photo woog président de la république. président de la république amul jotu toog di xool youtube naan kii may saaga kii may wax lu baax talul loolu hmm. mi ngi ci soxla soxla soxla askan wi ñi nga xam ni ñooy entourage am président de la république dafa am lu moomal boppam sañ na nag doxantu ay nit koj ko foto ak moom hmm. sañ na ay nit taxaw wax ko seen ay doléance mu def lim ci mën mais moo njaboote ñëpp ku njaboote ñëpp da ngay uuf ñëpp mais bu fekkoonte ne président de la ku ko wax lu ñaaw m defante ko yow mais kon du liggéey président de la république nit la koo xamante ni euh, nitu ñëpp la président ñëpp la te ñëpp la fi nekkal. Hmm. mais nañu bàyyi xel ni président de la république dafa am lu moomal boppam am lu nit ñi moom ci moom. am lu njabootam moom ci moom. kon fépp fu mu taxaw. Hmm. bu fekkente ni ñëw nga doon ko ŋàññi démb tey nga ñëw ci wetam loolu fierte la ci ñun ñi nga xam ni ñoo nekk mouvement présidentiel. Hmm. ñuy lancer message ñi nga xamante ni ñëpp ñoo nekk ci bitim réew nañu ñibbisi. ndax am na lu ñu leen fi defal lu tudd DER am na lu ñu leen fi defal lu tudd FONGIF am na lu ñu leen fi defal loo xamante ni nit ñi ñu ngi liggéey di gis seen bopp di remboursé. d'accord nañu wax ci yi nga xamante ni mooy bilan président de la République kenn du ko attaqué ci bilan li ngay dégg mooy photo woon ak saaga. am na ñu jàpp ni lii ci bilan bi la bokk de. non mais attends mais photo woo photo woo ak Awas Kuti du crime. Hmm. Awas Kuti bu fekkente ne ni wax na loo xam ni waru ko wax président de la République nekk mu dem jéggalu ji ko. mais yàlla sax dañu. ah dafa dem jéggalu ji. mais ak lu mën am moo ko fekk ji Macky Sall fekk jiwul awaskuti xamul hmm. awaskuti fekk jiwu ko te président de la république grandeur ëpp na loolu. d'accord am na fi ñu bari ñoo xamante ni bëtu tan xeeb na ndawalu sang lañ. <laughs> doo fi toog gis ay <laughs> journal ay site internet étranger chaque jour ñu ñëw gis nañ fi ki nga xamante ni mooy Mayni Jones. Hmm. dugg na Sénégal def reportage am wax lu ko neex te gouvernement bu Sénégal toppuñ ko ci dara. d'accord na nañu xam ni. ñay hmm. mbooloo moo koy rëbb. pourtant barki de moo njaay. Youssou Ndour journalam bi bind tey muy l'observateur kii wax loolu mais Youssou Ndour barki démb la dem recevoir Adamo Paris te Adamo chaque jour ñu day saaga day wax nangam du ñu wax ci loolu pourquoi bi Youssou Ndour recevoir ki nga xamante ne mooy te ministre conseil la li tax gars yi binduñu loolu journée l'observateur. d'accord nañu bàyyi di fulli yu ñaaw yi. tey hmm. wane yu rafet yi yu rafet yi. ñun daal ñuy mel noonu. li ñu dal hmm. mooy nañu ànd am. Cheikh yaa ngi yaa ngi xam nga xam nga xam nga xam nga paas man. xam naa nuyoo paas xam nga boo. boo demee ba boo demee ba. di tëqale Youssou Ndour. ak président de la république Youssou Ndour dénkuñu ko alalu askan bi moom moo waxal boppam kenn waxul de. Macky Sall moo toogal boppam. mu ne day réguler li ci réseaux sociaux yi. saay. ñaata sénégalais la ñuy jàpp pour appel à